les ennemis raillent, la famille farmarène travaille, mais des fois, il y a des querelles, des fois, il y a des problèmes, mais c'est normal. Quand le chien aboie, la caravane passe. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre toute nouvelle rubrique K sur le plat. Comme d'habitude, K et Playdel, d'affaire sur le plat, tan si Encore, famille franc famille sec. Il y a toujours des disputes. Qui est qui Comment Quand Entre Wali Balagosek et Mandiaï Sek. Pourquoi pas entre ça Parce que tu as dit Mandiaï Sek, l'indé Gumladewar. Gannaaw bu mu son beau ramené voilà textuellement il est riche mais il n'y a pas beaucoup encore beaucoup de vues parce que ça fait 4 jours mu daal 36 000 voilà, même pas 40 000 vues que am na sur YouTube bi ngeen gisee ndokkee ñëpp bu tuddee xam ngeen ni kii di que fu mu toll nii ngi subatel musique pourquoi c'est normal est-ce que looloo waral mu daal di génn defu mbirum il faut mu clash pour son bi mais c'est normal si muy sobis de bokk mais en tout cas gannaaw bu mu génnee maanaam son boobu tuddee ko quatre jours après ñu daal di ki invité fële sur ITV DJ Padros daal di ko invité moom ak ñii di ay natangom, ñu like ko si relation mom ak kii di Wally Ballago Seck et pourtant ñoom ñaar seen relation c'était super cool Mega super cool sa lay wax parce que bu ñu ki di manjay Seck ak ki di Wally Seck ñoom ñaar bokk nañ sax ben son ñu jóge di fa son bobu sax Wally Ballago Seck moo ko dugal si seenam seen Wally Ballago Seck sur YouTube fu mu toll nii moo si cinq mille cinq cent cinq cent mille vues et quelques

kon tey lu waral kii Demba Ndiaye Seck génn ne wali Ballago Seck lu waroon def def ko est-ce que day jox raison lu Sénégal yi doon wax temps yële passé ça fait deux mois wala trois mois gannaaw ba kii Demba Ndiaye Seck ak kii di ak kii di Bambaali Seck génnoon seen kër maanaam Faramareen dem fële si Subatel Sénégal yi bay jàpp ne entre Subatel musique ak wali Ballago Seck ce sont des ennemis musicalement parlant je veux dire maay mool isi loolu la tax kii Demba Ndiaye Seck génn daal di yëkkati ay kàddu parce que moom jàpp ne ni Faramareen musique ñoom ñëpp ko moom parce que kii di Thione sec moo jur kii di Wally Ballago sec moom ay doomu baay lañ moom ak kii di bambaay sec ak Mandiaye sec donc Faramareen musique ñoom ñëpp ko moom donc fu mu toll nii Wally Ballago Seck lu mu def waru ko def maanaam comme que yat bi moom la daal yàlla moom la jiital seen famille fu mu toll nii maanaam c'est l'étoile c'est la star pourquoi Wally Ballago sec dimbalu leen mais est-ce que Wally Ballago Seck bu ñu fàttalikoo si ginnaaw euh, kii di Wally Ballago Seck bëggoon a ndimbal fële si kii di Akon parce que c'est normal àddina bi kenn mënul dem yow kese noo def maanaam yàlla dimbali la te yàlla bu lay dimbali dafa am si ay loxo yoo xam ne fa la koy jaarale buñ fàttalikoo kii di Thione Seck euh, pas Thione Seck excusez-moi mais Wally Seck bu mu demee si Akon Akon def ni ko il faut nga liggéeyaat moo tax Wally dem liggéey ba tey muy def ay featuring ay kiss Brown ay artistes yu mag si àddina bi est-ce que leçon boobu la bëgg jox kii di Mandiaye sek ak kii di Bambaly sek ba ñoom tamit ñu mën a liggéey ba yam fu mu yam il faut que ñu jëlee affaire yi positivement et c'est normal si milieu showbiz la nekk il faut que des fois ngay jël ay xeetu ko sànni et c'est normal Wally sek Seck c'est le chanteur du peuple c'est le choix du peuple c'est le number one comme moom ñu koy waxee woon képp ku bëgg maanaam buzz wala nga bëgg nit ñi wax yow il faut nga laal ko c'est normal il faut que Sénégal une bàyyi on doit pas toucher à wal forcément parce que c'est le number one moo wax bopam et number one il faut que ñu des fois ko bëgg fenn il faut mu la même une né sax ñom ñu famille, une famille ñu famille, seen famille, musique ñu une même et c'est normal parce que tay une ñoy waxtaan suba timit peut-être est-ce que tax une famille, et j'en suis sûr que wal du ko def dara day ñëw déglu ko après dem comme nga romb si si si mbedd mbalit wala mbuus ñëw sa kaw ngaa di koy fëlëx noonu la koy defee parce que foofu la toll fu mu toll nii waaye tamit bu ñu waxtee dëgg rek est-ce que Wally Ballago Seck wala leen dimbali wala tamit est-ce que Mandiaye Seck moo war dimbali boppam liggéey ba fii Wally Ballago Seck toll mu toll fa mais waxam dafa xaw contact du tout à top parce que moom tamit moo ngi répondre kii di Keba Seck naan maanaam lépp yu wax waruñu ko waxee si média bi mais na maanaam nit ko war a waxtaanee en famille mais est-ce que moom la waroon def mais en moom nee na dem na ko Wally Ballago Seck ñu ko dee fekk muy nelaw mais est-ce que tamit c'est forcé que di Wally Ballago dafa war a jàppale forcément ak rekam ñun suñu Sénégal lañ nekk boo waxee Sénégal da nga naan dëkku teraanga suñu suñu cosaan maanaam suñu aada lu lañ xam ndey ak baay bi nga ko bokkee sax da nga war a jàppale rawatina ngeen nekk ay doomu baay comme ni ko Thione Seck woyee woon. sa wéy mu mag ba doomu baay bu reer reer bi ba ma donc il est temps que Wally Ballago Seck tamit gestu tamit mën a jàppale ay rakam mais du force ba du force ça <laughs> moom dañ koy wax moom daal du force du Wally Ballago Seck est-ce que c'est forcé ou pas mu daal di jàppale rakam loolu dama leen koy bàyyi yéen ngeen tontu si est-ce que c'est forcé kii di Wally Ballago Seck jàppale ay rakam wala du forcé bu ko neexee jàppale leen bu ko neexee tamit bàyyi ñoom tamit ñu góorgóorlu waaye àddina daal ak lu mën di am nit jàppee rek nga ñu mën a jàppee liggéeyal rek bis dina ñëw nga daal di fayee ko en tout cas fu mu toll nii moom coow li jugaat na si seen famille boobu boobule est ce que tey Ousmane Seck dina ginaat wax point d'interrogation je sais pas buñ foofu xam ngeen ni tey jii la Adji Sarr ak kii Ousmane Sonko nar a jàkkaarloo ñoom tamit quel face to face Adji Sarr Ousmane Sonko en tout cas soo may procuré moom daa may ne daal lay may cinq minutes ñoom ñaa ñu toog waxtaan Kamu wa tana loolu ma bëggoon naa ko fekkee sama sog bi ay sob ba bëggoon naa loolu ma bëggoon naa ko fekkee Ousmane Sonko Adji Sarr seen face to face fuuf lu ñu ada a waxtaanee ñoom ñaar en tout cas daal Ousmane Sonko def na costume bu toj bu rafet macha allah génn këram gars di ko ñaanal mbooloo mu topp ko waaye Adji Sarr tamit rouge am bu rouge ba macha allah Aji Sarr yow tamit yaa ngi si temps kon en tout cas daal tey ñaar gëm naa ni moom seen face à face dina trop. Sénégal chaque jour c'est ça c'est normal mais en tout cas euh, j'aimerais rek lay ñaan ñom ñaan seen parce que a Adji doomu Sénégal Ousmane Sonko euh, le futur président du Sénégal je sais pas féké mo def bu féké keneen mo def en tout cas j'aimerais lay ñaan fu mu toll je seen waaye encore di bu bravo à nos lions.

ngi wat ñeneen ndam waaye bravo à toi Aliou Cissé ba nga ñëw ba léegi chaque coup du monde ñu dem <laughs> wallaay ndeysaan indi nga ñu coupe te gëm naa ni da nga ñu indiwaat beneen coupe d'Afrique incha allah gàcce nga laax ma jour yëpp yëpp yëpp yëpp bravo à vous merci yéen def fierté Afrique waaye tamit marocain yi ñeen di ñaar bu baax a baax ñeen tamit dem ba demi finale parce que c'est l'Afrique qui gagne mais wax mbokk internet ci Wassare Célébrité li noo indiloon tey seen biiru bi ka sur le plat avec votre frère Mamadou toujours, j'ai le plaisir de vous servir. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous suivre. Maintenant, il est temps de donner du temps aux autres paradigmes. En attendant, je vous conseille de vous abonner sur sa célébrité. Imaginez beaucoup de Merci à toi, Khalil, Samakarman, Borom Koutal, TV, Mayaw. Thank you very much, and Peace. Merci beaucoup.